ñoo ngi leen di joxe xikma mi nag fii ci daaray Hikmatul mi nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 voilà 77 712 44 71 ci ñi bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul te mooy mottali bi ñu tàmbale woon fan yi muy ndénkaani sëriñ bi te mu dénkoon ko murid saadix yi guddi gi mujj fanaane jolof ngir war a war a jëm si njaareem te muy ndénkaan yoo xam ne nii kat jullit yëpp a ko war a dégg waaye rawatina képp ku yaakaar sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo tax Cheikh Mouhamadul Muntaqa afisahullahu waraa ne nañ ko yaatal ba ñëpp dégg ko ñu ci doon barkeeloo kon xam naa tey ñu tajee ko ndénkaan yem leen dénk yem leen mujj dénk bokk na ci dénkaan yam leen mujj a dénk bam leen waxee yim leen njëkk a wax ba noppi ah, daf leen wax na leen yéen ñii nangu ak njëbbal ci sama tur ma dénk leen yéen ñii nangu ak njëbbal ci sama tur ma dénk leen rekk ku ñëwati fii yéen ah, sukk ci seen kanam wóor leen ne juru leen leen jëndu leen leen jàpp leen leen ci toolu xare ne def leen a bëgg a jébbal boppam te yàlla rekk a tax la dale ci bis boobee ba ba ngeen di bokk faatu mbaa kenn di ci faatu ci yenn di fi bàyyi moroom ma buñ xamante lu ngeen leen gën a bëgg lu dul yàlla muy wax ju am solo joo xam ne nii képp koo xam ne nii kilifa nga wala képp koo xam ne nii yaa ngi nangu ak njëbbal te mu wóor na la kat sëñ Tuubaa nga koy nangu dénkaan bi war nga koo jàpp di ci bàyyi xel di ko yandoo di ko fanaanoo waxtu wu nekk képp ku jébbalu ci yow te yàlla rek tax nga xam ne da ngay nangu njëbbal ngir sëriñ Tuubaa ah, mu wóor la kii kii ngay nangu ak njëbbalam juróo ko jëndoo ko jàppoo ko itam ci tooli xare dalay jébbal boppam rek te yàlla tax la dale ci bis boobee ba ba ngeen di tàggoo ci àdduna bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu dul yàlla loolu nag wuuti nag jamono ji ni ñuy dundee lool jamono wuuti nag ni ñuy dundee lool jamono ji loolu sëriñ bi wax na ci soññee ci ba tàyyi lu bare bare wax na ko ci ndax am murit moom benn bëgg-bëgg la war a am muy ngërëmul yàlla isil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmaani xaysu qasada ab murit benn bëgg-bëgg la war a am muy àgg ci yàlla muy ngërëmul yàlla àgg ci yàlla rek la war a bëgg muy murit bi looloo ko indi ci sëriñ bi waaye sëriñ bi itam benn bëgg-bëgg la war a am ci taalibe bi muy àggale ko ci yàlla isil bi laa yuridu fil murid illa al wusula naajiyan min al marid sëñ lépp bind na ko kon nañ farlu te góor góorlu te xam ne moom day laa biire nañu bàyyi lu ñu dara lum ñu war a wax ci ay ndigal ak i tere ak i ndénkaan nañ ci farloo yàlla na suñu borom defal tawféexuk nag dégg ay ndigalam ak i ndénkaanam te jaar ca te jariñoo ko àdduna ak àllaaxira di ñaanal Cheikh mu taxa mu yàgg fi ndax moom day am murit saadiq la waaye nag loolu la yéene ñëpp moo waral coonoom bi mu sonn yàlla na suñu borom defal tawféex ñoo ngi fàttalewaat bu baax siyaare ñu koy waaja defal la 9 février incha allahu te waa daara Hikmatul Yawmi ñëpp association bi ak ñi bokk ci groupe bi ak fépp fépp fu ab taaliba mën a jógee rek te mën a ñëw ànd ak ñun ñu siyaare ji ko incha allahu ñi bokk ci groupe yi ak ñi bokk ci association bi tamit ñoo ngi sàkku ci ñoom kenn ku nekk addiyee ja nga xam ne nii boo gisoon sëriñ bi da nga ko teg ci loxo bi ngay teel ko yónnee ñu dajale ko def ko muy benn ñu joxandoo ko ko Euh, di leen sant baax di leen gërëm ku ci bëgg ay leeral euh, wala nga bëgg dem ndax ñi bëgg dem ñëpp dañ leen a bëgg a bind lu jiitu ñuy dem ñu xam ne nangami nit incha allahu ñoo bëgg a dem kon ku bëgg a dem nag faaw nga woote bindu kon ñoo ngi soññaat tamit mbokk yi nga xam dañuy envoyé seeni euh, addi yi ñu joxe weer mu jëm ci daara ji te ñu koy def ci numéro Hikmatul Yawmi bi muy 77 633 77 56 ku ci envoyé tamit nga yónnee vocal ci whatsapp ba xam leen ne man la diw maa yónnee ñaari téeméer yooyu wala ñeen téeméer yooyu wala addiyee jooju bu ko defee ñu daal di koy mën a bind mu leer jërëjëf ku ci bëgg leeral nga woote ci 77 633 77 56 wala 77.